أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موك جلدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بال اق بو باخ تبارك الله دي نيان يالا يان يالا دولي دافال جام دي نوكل نييب سي اديما جي ني نك رواتينا نك دك بيغا خامتاني موم لا ني نك كو خول سي غيناو خامني نك واخ دك يالا am lu fi xaw ta fu mu xewee Mamour Fana Mamour Fana nak dekk la bo xamanteni mu ngi fi ci bir rewu Gambia. inshallah rabbi rabbi euh, dañ am tey ubbite juma ji nga xamanteni mom la wa dekk bi tabax ndaw yi dekk bi yep japp ci inshallah rabbi mom lañ fas yene ubbi tey si àjjuma ji ñi ngi si ziar ñep euh, di ci ndokel ñep mu melni nak tay nak inshallah wa Badru TV di First Islamic Online TV in indi Gambia ñoo ñëw fii wax dëgg yàlla fas yéene ànd ko ak ñoom si ubbite bi tey nag euh, bala ñu si wax dara rek incha allah dañuy jox suñu wayjur mi alxaaji Ibu Cissé mi nga xamante ni si doomi dëkk bi la tey euh, yàlla xamal ko lool wax dëgg yàlla ni dëkk bi di doxee incha allah rabbi moom leen fas yéene àndal. ñi waxtaan tuuti ci li nga xamanteni modi jaar jaaru maamul fana waye tamit li nga xamanteni modi jaar jaaru kilifa gi fi nekkon waye sababu tabax juma bi bi fi ci bir rew mi inshallah rabbi ñu and ci ak euh, alxaaji Ibou Cissé. waaye Ibou ñi ngi lay nuyu bu baax ah, di la ziar di la ndokkel tamit ci aljuma ji waye tamit di la ndokkeel si ubbite aljuma ji nga xamanteni mom lañu ji maamul fana fi ñi ngi si ndokkel wa dëkk bi yëpp di ci jital alkali ak euh, ki nga xamanteni modi imam bi tey nag nga nekk kenn si njabooti waa Mamoul faana incha allah rabbi Badru TV ñëw fi parce que ànd ak yéen si li nga xamante ni moo di ubbite jumaa ji ñi saako rek incha allah rabbi nga nuyuwante ak mbooloo bi waxtaan ak incha allah bu neexee yàlla. maanaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu leen di nuyu yéen gan ñi nga xam ne yéen a ñëw pour jël si lii nii pour récolte ko ah, di nuyu waa dëkk bi ak mbooloo mi fi teew yëpp gan ñeeg képp fi teew ñu ngi lay nuyu di nuyu waa réew mi yëpp ah di sant di gërëm tamit waa Badru TV bii ñi nga xam ne lii ñu tax ba lii gën a siiw ñu ko gisu doon gis ko ñu ko xamutoon it xam ko waaw ñu la leen xamal ne fii nag moo di Mahmoud Fana dëkk la bu xam ne ñi fi dëkkee di um, population bi li gën a bari ci dëkk bi ay olof lañ te ñu bari siise lañ sant am nañu ay uh, yeneen sant waaye ñi nga xam ne ñoo fi de cosaan fii ci dëkk bi ñi siise lañ ñi sant Dieng ñi suñu bokk géwél yi ñi sant Guèye am nañu mbayeen mbayeen tamit waaw ñooñu daal ñoo ñi nga xam ne ñoo cosaanu pour sanc dëkk bi waaw te ñu ngi ko sancoon ci 1922 ci lañu sancoon dëkk bi man nag ñi ko sancoon suma baay ci la bokkoon waaw ak góor gi Mamoud Fana mu ngi xam ne moom la ñuy wooyee dëkk bi ak ñeneen waaw amoon na bay Omar mberi amoon na bay bay Serigne Baati kooku Guèye la santoon ak waaw ak seen ñeneen i àndandoo amoon na suñu bay Heli Kumba kooku Cissé la sant waaw ñooñu daal ñi nga xam ne ñu cosaan ci dëkk bi ñooñu ñoom ci lañ bokkoon waaw ñooñu ci lañ bokkoon a ah, ba ñu ñëwee nag ñoom ñëpp ay bokk lañ wante woon ñoom ñëpp ñu ngi joge ko Oppa Saloum Maodo Fane fii. dëkk la boo xam ne bii ñi fi jógee ko ñi fi nekk ñëpp su may ci réew yi ëpp Saalum lañ jógee ndax fii ñetti kaabila ñoo fi ñeenti kaabila ñoo fi nekk moo de euh, ngéwél gii moo de ñi sant Dieng ñooñu baat xay lañ jógee ñi sant Cissé ñooñu muy suñ boor ñu waa Kélimaan ñi ñuy wax Kélimaan baati xay lañ jógee waa kër Baay Mamoud Faana ñooñu tamit ëpp Saalum lañ jógee ko moom daa bu may bool ne dëkk bi ñu fi nekk yëpp suufi Opo Saloum lañ jógee ko ñëw dajee fi nekk ay mbokk di jàppalante ba bis yàlla tey bii loolu moo daal moo di seen cosaan. jërëjëf jërëjëf Baye Iba kon ku ko dégg rek xam ne ah, dëkk bi yëpp ñu fi nekk yëpp ay mbokk leen wax dëgg yàlla parce que ñëpp daanaka si Opo Saloum bi lañ eh, lañ jóge ko tey Baye Iba ngeen tabax fi jumaa ju am solo nga xamante ni ñi toll si jamono joo xamante ni jamono ju métti la. jamono joo xamante ne mun nañu wax ne nit ñaa ngi xeex lislaam pour tëj jumaa yi wala tëj barabu daara yi wala di xeex lislaam yéen ngeen toog ba lu mel ni ak alal ju bëri ji ngeen def ko si jumaa ji nan ngeen def ba jumaa ji am. waaw jumaa ji de ah, boo ko seetee tabaxoon nañ fi jumaa sax ju xam ne jii nii rafet la woon wante ndawi dëkk bi ak ñi nga xam ne fi dëkk te nekk ci biti ñoo gis ne. daal seen denn buñ jéemee danañ mën a def jumaa ju xam ne daal moo dàq ji fi nekkoon te moo ko gën a euh, rafet tamit te ndax jumaa jooju jumaa la ju xam ne bii dañ ko péntiroon te bu may boo ñaari at ak ñetti at yu ne pént dañ ko def daal su xaaju ñu péntiraat waaye ñu ne daal nañ def jumaa joo xam ne dafay méngoo ak jamono jumaa joo xam ne dañ koy karo nga xam ne buñ ko karoo ah xañ na mën nañu jox at yu yàgg duñ ci aajowoo luñ ci def te itam balaa ñuy ah, bi ñu defee jumaa ji nii ba mu pare terewul ah, waa Mamour Fane waxuñ ne fii la ñuy emale seen jëf de rëdd nañu daara joo xam ne jii nii ju mag la mu ngi fii ci gannaaw dëkk bi fii yoo xam ne dañ fay jàngale alquran di fa war fa jàngale xam-xam bu soobee yàlla waaw loolu seen hin la bokk waaw fii nag moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo ci sponsor seen alal muy ku nit ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi nga xam ne dañ génn nekk ci biti ñi nekk kombo fu waaye mu a ne def nga ci sa alal ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm waaw. jërëjëf comme ñu ko waxee ñi ngi sant ñëpp euh, di leen gërëm si alal ji ngeen jël euh, macha allah def ko fii nga xamante ni moo di Mamoul Fane si si jumaa ji mu doon la am solo parce que yaakaar naa ne nit lépp looy dépassé si sa alal dépassé ko si yoonu yàlla dara dàqul ko si. Euh, rawatina nag ñu ne dañuy tabax néegi yàlla dëkk bi ndaw ñi ñëpp jàpp si euh, defal li nga xamante ni moo di moo di jumaa ju seet sell ji ñi ànd si rek ak euh, suñu baay baay bu ba tey si gis-gisu jumaa ji ak seen xalaat si jumaa ji waaw. suñu xalaat ci jumaa ji moo de jumaa de duxul ne tabax bi mooy jumaa de tabax bi moom ay weñ la ak i matériel yuñ dajale rek boo ñuy wax jumaa moo di dajee bañ fay dajee di julli jumaa dañ koy dundal dañ koy tabax de waaye boo ko tabaxee ba pare pour nga dundal ko nag moo di dem dafa jaamu ji yàlla léegi képp ko xam ne kii nii yaa ngi fi dëkkee te jumaa jàpp la li may sant mooy ñi di ñëw ci jumaa ji ñu dundal ko ndax kat loolu rek lañ ci am su yoo xam ne moom lañu yàlla sant ndax yàlla moo ñu wax ne maa xaratul jinna wal insa illa li yaabudooni jaamu yàlla rek moo tax ñu tabax dajee fi di jaamu yàlla moo tax ñu tabak taar bi nii nag yàlla loo ko defal ci taar ëpp na ko dara jam ëpp na loolu loolu moo waral yi nga xam ne def nañ ko ci waaye nag jaamu yàlla rek moo tax ñu samp ko fi waaw di ñaan yàlla boole ko ci barab yi ñu nangoo ñaan jaay sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni yàlla nee na bind ma nit ak jëne lu ñu jaamoo waaye ak fu ñu war a mën a jaamoo yàlla te ñëpp xam ne ne jumaa néegi yàlla la su ko defee nag ñuy bàyyi xel ñu ñëpp si aaya ba rek wa anna al masajida lillahi fala tadau maa allahi ahada ndax jamono dafa tumaranke ñu bëri dañuy jàppee jumaa yi ay néeg dañuy dem ba ni ñu miinee seen kër yi noonu la ñuy miinee jumaa yi te wax dëgg yàlla barabu nit yàlla wala barabu barabu yàlla rawatina jumaa yi war nañ leen di bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax si ñi nga xamante ni ñoo fi nekk war nañu waa bàyyiwaat xel bu baax a baax euh, jumaa yi kon su ko rek ñu ngi si ànd ak bàyyi bu su ko defee rek ñu wax ko mu dénk lan lay dénk ndaw yi dëkk bi ak euh, li muy leen di xalaata rek incha allah. ah ndaw yi dëkk bi de li ma leen di sant ah wala ndaw yi réew mi yëpp li leen di sant moo de gis nga ndaw lu seer la nit boo xasee boo nekkee ndaw soo ko manee lépp man ci lu baax de ko jéem gis nga boo demee ba di mag mënatu la dara ndaw nag ndaw yi na man li ma leen di sant li nga xam ne mënuñ war a jiital mooy nangoo liggéey gis nga diina ndaw nangoo liggéey dara jiitu ndaw bu nangoo liggéey dana faj soxlaam faj soxla si mag ñi ndax mag mën a tuddal liggéey lu ko faj lu faj soxlaam waaye boo liggéey yow ndaw mi boo nangoo liggéey li mag mi waroon a def di nga ko def li la waroon yëwit da nga ko def te ñu boole ko ak di julli nangoo julli nangoo jàng nangoo jaamu yàlla aduna nag boo gisee jàng baax mooy tiraangaay aduna mooy tiraangaay àllaaxara ndax ku jàngut daal dafa mel ni yow sa aduna ah, lu ci bare bari da nga waaw da ngay lu bari mooy ndaw yi nañ nangoo jàng nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla yàlla kat bu la siina amono fu mu wax wa amiloo saalihaat la cee waaw ku xam ne gëm nga yàlla nee na del def del liggéey di def lu baax liggéey nag kenn waru ko desale gannaaw waaw ndaw daal bu nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla bon daal mu nga ca la ko war bon ak euh, avancement xam euh, yàlla ubbil na ko buti avancé waaye ku xam ne nag nanguwuloo liggéey ah nanguwuloo jaamu yàlla a ah, sa avancement du yomb de waaw du yomb waaw ne daal yan ndaw yi daal ñu ngi leen di daal nañ góorgóorlu nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nangoo jàng waaw. kon macha allah loolu leen doon euh, waxtaan ak ak suñu baay bu mi euh, ñi ngi bég tamit di jégg lu baax sa temps bu ñu tardel waaye tamit comme ni nga ko waxee rek wax nga fi kàddu am solo yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp mën nañ si jàngee jëriñoo ko kon ñi ngi lay ñaanal yow it yal na yàlla guddal sa fan. yalla barkel say njabot ci barke yonent sallallahu alayhi Wasallam. kon su ko defee lii leen ak suñu baye bu inshallah allah rabbi ñu fas andata àndaat ak keneen kanam bu neex kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat ba tey ñi ngi ni toog ak suñu wayjur suñu kilifa gi nga tabarakallah moy Serigne ahmad ndias nekk fi si doomi Mamoul Fana euh, doon nit ko am taxaw ci walu liggey jumaaji su ko defee sëñ Ahmad Badru TV eh, ñoo ngi leen nuyu bu baax waaw loolu dëgg la eh, jumaa ji maa ngi sant gune yu dëkk bi di sant gune yi nga xam ne ñoo judd ci dëkk bi duur gune yi nekk ci dëkk bi rekk de gune yi nga xam ne ñoo judd ci dëkk bi te génn ci bitim réew nekk ci bi ci ci dëkk ci réew mi ak bépp réew bu mën a doon gune yu góor lañ torop gune yu góor lañ torop man de maa ngi leen naw parce que man de li ñëw fii ci xalal yoo xam ne nii ci Mamour Fana lañ koy def kontaan rek laa ci def te bëgg naa it mu continuer dem ca kanam dégg nga nit fi dëkk fa koy fonk nit fu nga dëkk fa nga koy fonk ñu amal eh, suñ kilifa yi eh, njukkal moo amal sa kilifa njukkal mooy nga nga nga lifin nga nga nga nga defet lu affaire yi julleekaay affaire yi daara yëpp ci dëkk bi ni ñu tuddee utiliser gune yi nga xam ne nii ñooy nekk ndaw bala fii baañee mag waaw loolu lu rafet la lu rafet moom moom moom la te gune yi ñu ngi ci koom. jërëjëf sëñ Ahmed euh, gën a yaa ngi si kawam naka ngeen def ba am taxawaay ndax jumaa ji taaru ju mel ni méngoog jamono ndax gouvernement moo leen ko tabaxal wala kenn si njabooti réew mi moo ko tabax wala nan ngeen def ba mën a taxawal lu mel ni si biir dëkk bi. takkutoo booloo nekk benn bokk ndey bokk baay ah? moo tax ñu mën a samp jumaa ji waaye benn gouvernement ak benn société nekkul ne moo ñu dimbale ci affaire boobu. fii daal ñun gune yi dëkk bi ñun fi juddu ñoo ko ñoo ko traay liggéey ko ah liggéey nañ ko nag ñun ñoo ko traay liggéey ko xemuñ ci lii rek xemuñ ci jumaa ji rek ñu ngi ñu ngi semb leneen boo xam ne daara la boo xam ne foofu la ñuy war a jàngee gune yi foofu la foofu la ñuy jàngee gune yi daal. fii ñoom ñoo ko defee ba kenn dimbaliwu leen sudu suñ xarit am na am nañu ay xarit yu dëkk baati njool yu dëkk fu nekk boo limee juum ah ku ko dégg suñ nit nga rek ah am na loo ci def. est-ce que liggéey bi yàgg na lool mën na ay at wala ban diir la am. waaw liggéey bi eh, jël na ay at waaye ñaari at bi ñetteel bi moo nekk nii ñu koy julli ñaari at lañ ko liggéey ñetteel bi ñu julli ko mu ngi nii waaw. biñ ko commencé liggéeyal ñaar la bi bii moo ko ñetteel muy ñetti at maanaam ñetti at liggéey bi tri ñetti at ci la toll jumaa ji waaw. macha allah kon dafa mel ni ñetti at wax dëgg yàlla ndaw bi takk ko du gouvernement bu leen jàppale. du kenn ki borom alal ku ne mo tabax li ndaw yi dekk bi nga xamanteni modi dekk Mamour Fana ñam ñoo and nek ben dajale sen doole dajale sen am-am tabax fi lu melni ko gis ni jumaa ji taro boo boo ko xoolee kat alal ju bari duguna ci kon ñu ngi ñaan lepp lu ci waye def mu neew mu bari yaan yalla barkel ko si daraja ci yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kon mu ngi ne kon euh, seigne Ahmed lan ngay denk taw yi dekk bi fuñ toll. dekk bi lima leen denk moy continuer rek jappo biñ def ni buñ ci tayal ah continuer ko rek suñ ko continuer daal luñ song dinañ ko daan dégg nga xam ko xamut xamut fu ñu xamut xàpp fu ñuy xem suñ continuer suñ suñ suñ liñ jàppee ni luñ jàppante nii luñ song rek danañ ko daan waaw te kon maa ngi leen ñaax ñoom ñëpp ñu jàppante ah de dégg de déggante parce que déggante fu ne am na parce que am nañ kii eh, am nañ groupe yoo xam ne nii ñëpp ñu ngi cee wax kon déggante am na ku jàpp nañ jàppante daal kenn ku nekk sa dëkk jaral la ah, kenn ku nekk sa waajur jaral la loolu da loolu loolu am solo la kenn ku nekk sa dëkk jaral la kenn ku nekk sa waajur jaral la ah su ma sa waajur bi itam ak waajur keneen ña ngi xamee la yëpp yëpp ñooy benn ñun Maama Fana fii xaajo amut fi depuis ci maam ya nag ba léegi xaajoo nekku fi man de gisuma ko waaw Jibel Sarr mi ngeen àndat man maag moom maamam laa tey baayam ba mu fi ñëwee ak tey nijaay la may wax te te si maa ak nijaayam yi ñoo bokk baay moo tax nijaay rek la may wax kon man maamam la dégg nga fii daal dëkk bi fañ jokkoo nii nii def mosu ñee xaajo te loolu gun maa ngi sant gune yi nga xam ne ñoo nekk ci ron nañ continuer seet si seen mag yi ah pour ëllëg ah ndax ñu man ñoom itam lu ëpp lii parce que ñu ngi wax ne ñun def nañ fi jumaa ji kere ba ma ko biñ koy wax ma ne leen gune yi ñëw ñoom fañ koy bom mu toj ah ñu def fi joo xam ne weer kese laay nekk wax na wax na wax naa leen loolu ma ne ñoo ñi ñëw loolu danañ def loolu ñoo xam ne fañ koy bom mu toj mu dugg ci biir suuf si ñu ñu defar ko ñu defar ko muy weer waaw parce que l'islam moom mérite na lu ëpp loolu eh, tabaarakallah kon mu ngi noonu ñu ngi ànd ak ak suñu wéjur suñu Ahmed eh, Niass nekk fi si doomi réew mi ñu ngi koy sant di ko gërëm kàddu yu am solo la fi joxe parce que comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne xubbul watani minal iman bokk na si gëm yàlla dëgg-dëgg nga bëgg sa réew kon nag euh, firndeel na ne lii ñobooti Mamour Fana def firndeel na ne ñii kat bëgg nañ seen i réew kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ne incha allah rabbi ñu demaat ak beneen kilifa si waxtaanu Mamour Fana fii si jumaa ji incha allah ñi ngi ni togaat ak suñu wayjur suñu papa di serigne paté mi nga eh, am paté mi nga xamantene am paté jeng serigne am paté jeng nek fi di eh, njaboti wa Mamoud Fana di kuñu di belalit eh, si jumaa ji macha allah su ko ni mam ñang sha allah de jef jeri jef neena li mu sañ sañ ni señ imam ñang nek Talinding yaakaar naa ko ñepp xam la da ngay xala nuro mom sa tamit sha allah moko moko jox li mu sañse ko parce que mooy bilaali jumaa ji kon su ko defee eh, Baye Hampaté ñu ngi leen nuyu benn télé bu ñuy wax Badru TV tabaarakallaa ñoo ñëw fii Mamour Fana seet si leen fas yéene ànd ak yéen si ubbiteef jumaa ji bisimilah. asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen tatagal di leen wax bisimilah fii ci Mamour Fana yéen waa rajo bi. jërëjëf Baye Hampaté kon su ko defee ñu dugg si rek eh, lenn rek loo ñu mën a tënkal. si cosaanu Mamour Fana waaw. waaw cosaanu Mamour Fana de xam naa ci lu tuuti rek eh, parce que biñ koy sanc man juddooguma waaye suma baay daf ma wax ne alaaji Mamad Kumbari xëy ki nga xam ne moo jógee ko woon baat xay ñëw sànci fii di Mamour Fana mook suma maam Omar Mbéri ki jur suma baay daanaka ñoo ànd ñëw dafa wax ne sax. Eh, alaaji Momar Kumba Raxi ci mbaar yi biñ di fii ak wén fi newoon mu ne ci ron mbé gi lañ mbaaroon mu ne mbaar yooyu ci la bàyyi Xumar alaaji Xumar Jama juddoo mu tuddee ko sama maam Xumar Mbéri ci xam ne moom la àndatoon ñëw fii eh, gannaaw gi ñu ne moom eh, maamu Faana Ndumbe maamu Faana eh, moom itam ñëw ñoom ñu bokk fi dëkk mu nekkoon ñetti borom kër alaaji Momar Kumbaraxi suma maam Omar Mbéri ak maamu Faana Ndumbe biñ tuddee maamu Faana mii li tax ñu tuddee ko ñu ne maam Momar fa ko yow yaay nekk borom dëkk bi yaay nekk borom dëkk bi ñuy woowee tëkk bi maamu Faana dëgg la ma ci xam bëriwul de parce que xam-xam boo xamee ne fañ la ko waxal nga nga nga nga di ko nettali doo ci mën a doo ci mën a xóot waaye lii moom suma bàyyi wax na ma ko ne ma jamono boobu moom ngi nekk waxambaane bu bukki waxambaane bukki mooy waxambaane bi dem ba eh, tolloogu ci am jabar daal mu ne moom boobu foofu la toll ñu daan xëy di eh, jas xat du bëccëgee ñu dem ci teen ba di gas ba jagat bi jaalal ko ñu dem gornulu ji di gor mu ne ma nii lii de am na lu ma ci wax lii ci ci ci sàncab dëkk bi waaw. léegi sànc dëkk bi nga yaakaaroon ne si ban at lay toll si jamono ji. la takk la ko de kon macha allah kon leen nag eh, rek eh, si waa si jaar jaar fi nga xamante ni moo di samp eh, sànc gi ñu sànc dëkk bi di Mamour Fana. mbaayam paate ñu tabax fi jumaa ju am solo si jamono ju crise jamono ju tumuranke jamono joo xamante ni ñëpp a ngi daw di làqatu. ngir liñ nañ mo fi nek ci walu febar tabarakallah ba demoon ba jamono ñi ngi te jumaa yi di te di te daara yi tey ndawi ndawi Mamoul Fana ñew fexé ba taxaw walu melni jël seen alal ju bari def ci ngir ubbi jumaa ji ci bis bi lan nga ba yan kaddu nga wow am waaw loolu tam ma ngi am kontaan bu baax parce que man alaaji momo man mo le malay wax domam alaaji babu dugal ci nodd dañ mos daje ci jàkka ji timis noddkat neew fi mu jaay bi ko ne ma xam nu noddal ma ne ko abbaay ah, alaaji noddal nuñ ko waxee nit xam nga ndax mën naa nodd mu ne ma ku mën a jàng mën a nodd noddal rek ma jàll bi ko nodd nii laa commencé nodd bay alaaji baabu xoore moo ma joo ci nodd waaw jumaa ji jiñ fi jëlee biñ koy daane man dafa fekk sax ma tukki waaye bi ma ñëwee fekk ñu daane ko dama mer parce que li ma meree woon mooy jumaa jooju meloon na melokaan woo xam ne foogu ma xoon ne dañ fi def ju ko ju ko ju ko gën wala ju ko gën a rafet foogu ma ko xoon ba tax na Ama Ndiaye mi fi jógee nii ndax ma daa wax ne ma Bilal yow da nga da nga mer yow sa jumaa jiñ ñu daane moo tax nga mer waaye dinañ la defal ju ko gën a rafet fuuf ma ne ko yow da ngay wax yow yow fa nga dof waxe ku dof ngay wax lila ko rawa mune mo ma bilaa ma yo fa nga mel rek nek sa daa jumaa ji daane way dañ la wuutal ju xamne mo lay gënal foofu kon kon xana bila kana kon lay contane nga parce que liñ fi def ni ma ma sha allah bi deme nak ba rafet ba defet ni be legi heure bu fu dajé ma dafa ma naka sa djuba ji ma ne wax deug yàlla suma xol bi sedd na suma xol bi sedd na lol lol lol lol parce que djuma djelé sorori amna seigne Modou Ka mu dekk amna lay laay daf fi da ñew suñ dajee xaan komba li may wax su ma joxee loxo li may njëkk a wax mooy ante jumaa ju soororo yu jag yu gudd ya soororo yu gudd laa man moo gëtoo yi soororo yu jag jag a jag jag a jag moom ku baax nit ak dina la woon ku baax a baax a baax ba léegi sax dañ koy defar siyaare am dalaay kaarak jërëjëf sëñ bi kon macha allah kon mu ngi noonu wax dëgg yàlla kontaan neen trop eh, di la dalal fii di yan kàddu da nga am pour dénk ndaw yi dëkk bi rek incha allah ñu tëj benn yoon. fi nii moom man kontaan naa ci liggéey bi waaye fi mu ne dafa des ci ñëw julli li ma ñaax xale dëkk bi mooy li ci ñàkk ci xalal maara day taale waaye su ñëwut ñu ñu di ko jullee dafay nekk ngelaw li ma leen di ñaan mooy nu mu a def nañ gën a xiir ci julli dëgg danañ julli si de waaye damay damay ñaax pour ñu gën a yokk julli waaw nu mbooloo gën a bëree man moom a gënal xam naa ne heure nodd bu jot fekkee man xopp ma tukkiwu ma mm-hmm. incha allahu heure nodd bi moom daf may fekk ma am ay minutes parce que fajar dama fi am fukki minute ak juróom waxtu ma imaam jox pour ma nodd door a jot waaw te weneen waxtu yëpp itam heure biñ ma jox pour nodd balaa moo jot dana fekk ma fi juróom minute juróom benn minute fukki minute kon pour ku leen moom xam na fi waaw loolu moom am nañ ko te man ni ma ci mel kere nañ ko ci mel kere nañ ko ci mel ñoom maam booy ñoom Kéba Mbow ñoom maamu Ndaw eh, eh, ñoom ñëpp a ñuy nodd oustaz Mahmoud ñoom ñëpp dañuy nodd dëkk bi macha allah suma mag Saalum Njang day nodd dëkk bi macha allah noddkat yi bëri nañ waaye dafa nekk ne man dafa mel ni man la yàlla def suma xol bi gën ci sooy ma nekk ci njiit wàkkilu ci suma bopp nag wàkkilu boo xam ne daal ak fu ma mën a suma ma fanaanee xàll sax dëkk bi yëpp dañu xam ne eh, tukki naa ne moom incha allah. jërëjëf loolu foor na te am solo bu baax a baax kon su ko defee mbokk mu ngi noon dénkaane bu am solo lañ def la def mooy. Nen fexé wa dëkk bi di ñëw di julli si parce que tamit jël ala ji tollu ni daf ko si jumaa ji euh, bilal noddu imam taxaw premier sapé du fees loolu wax dëgg euh war nañ koy mune bu amé loolu neexul ko kon su ko ndaw yi dëkk bi neen xilaa seen bop ci jang xilaa seen bop si jaamu yalla way xiiraat seen bop ci li nga xamanteni modi barabu jumaa ji parce que lu tollu ni wax dëgg yalla ku ko defar te mu leer na sa ala dugg na buñ la wuyu ci la kon jërëjëf ñi ngi andag ak woon suñu baay ki nga xamanteni ne moo di sëñ Ampaté Dieng ñu ngi koy sant di ko gërëm waa Badru TV la incha allahu rabbi kon ba beneen yoon ak keneen incha allah kon su ko defee ba tey comme lañ leen ko waxawal rek euh, sëñ Madi mi euh, ku am taxaw la si liggéey jumaa ji su ko defee rek ñu bàyyi ko mu wax si Euh, taxawaayam ak euh, fi mu jàpp ba jumaa ji agsi fii te moom nag nekk si doomi réew mi waaye yàlla def euh, mi ngi nekk fële si Sarakunda incha allah kon sëñ ma di mu ngi noonu. waaw maa ngi nuyu ñëpp di gën a kontaan rek si bés bi tey ndax jumaa ji ñetti at si gannaaw lañ design pour génne ko tojaat ko liggéeyaat ko buñ ko design nag boobu nag ñu bëri nangu ñoon pour ñu toj ko ñu bëri na nañ ko toj ñu weerante mujj gi daal ñu na nañ ko daal ñu toj ko. Euh, xale yi nga xam ne ñu ngi fii ak ñu nekk bitim réew euh, ñu euh, jàppalante si pour tabaxaat ko bu ñu ko daanee nag si lañ waxtaan ñu def comité soo si la ñuy dénk ñun wàllu xaalis bi buy ñëw si ñun ñu koy contrôle ba pare ñu jàppale suñu président bi Alaaji Abdou Cissé muy jënd ay bagages di waxante ay maçon yee yëpp ñu si loolu ñu doon yëngatu bu ñu ko commencé nag métti woon na waaye après bu ñëwee ba xam ne ñëpp gis nañ ne lii taxaw na. dëgg dëgg dëgg ñu ngi gërëm waa dëkk bi di gërëm mboolem koo xam ne nii waa dëkk bi fi nga juddoo génn bi dem bitim réew ndax ñëpp ñu taxaw waaw ak suñu xamale ak suñu dëkkandoo ak suñu mbokk yi ñëpp ñu taxaw ba lii àggee nii liggéey bi de moom dëgg dëgg at yàlla ndax ñi ngi koy joxoon ñu itam taxaw nañ si ba defal ba mu rafet ba mu mel nii rek waaw métti na nag bi liggéey su fekkee ne liggéey alal la te nekk liggéey mbooloo euh, foog nga bàyyi xel tuuti itam. alal ji bu ñëwee su ñun ñoo koy contrôle euh, su alaay bu soxla bagage ñu ànd moom génne xaalis dem jënd ko bagage yi mu jox ay maçongam ñu gars yi liggéey noonu lañ ko nekkee di ko kënd këri ba toll fa fii tey waaw. macha allah est-ce comme liggéey bi yëpp comme niñ ko ni ko gars yi di waxee euh, dugg du gouvernement bu leen ko tabaxal du borom alal bu ñëw rek ne maa leen koy tabaxal takkaayu bi ndaw yi dëkk bi takk. moo tax ngeen am li yan jafe-jafe nga yaakaar ni ngeen si dund si loo xamante ni ëllëg si biir dem bay defaraale leen mel nii di ngeen ko moytu. wel euh, liggéey bi moom jafe-jafe daanaka amu si because liggéey bi ñu ko ñu ñu ko sémboon ñëpp si jàpp rek war nañoo ko moom waaw kenn ku nekk rek jël sa alal jël sa doole jël sa kattan rek def si jafe-jafe moom daanaka man gisuma ko si waaw jafe-jafe moom bañ ko bañ ko sémboo ba commencé ko suy mbiri xaalis xaalis mosuñ ko manqué waaw liggéeykat yi kay ñoo daan toog euh, xaw a yéex waaye mbiri xaalis moom mosu ko manqué su moo moo laay wan ne jafe-jafe amu si xam nga lu xaalis da te xaalis manqué wut kon amul jafe moom sant yàlla boobu amoon nañ ko ndax waa dëkk bi itam ñu ñu fi dëkkee ñu itam bawuñ lu ñu manqué na rek ñu daw dem li jëndi suuf li jëndi ndox li jëndi lu manqué fii rek ñoom dañ ko toppatoo bu ñu xaalis bu ñu xaay war naa manqué bi ñu waxee tey bu ñu bëggee lu mat five hundred taxawoon dara si mën nañ ko am suba soo kon liggéey bi moom dëgg-dëgg macha allah yàlla jàpp si baax a a baax a baax a baax euh, tamit yaakaaruma comme ni ko gars yi waxee jëlul ay juróomi ay at la jël yàlla def jumaa ji pare nii mu méngoog jamono nii lan ngay dénk euh, ndawi dëkk bi. wel ndawi dëkk bi moom maa ngi leen gërëm di leen sant di leen gërëmaat bu baax a baax a baax a baax euh, te leen dénk rek ñu gën a jàppante nde tey lii bu mu am jàppante moo ko waral kenn ku nekk si dëkk bi koo xam ne mën a jéngu defar lii soo ñëpp si jàpp rek mu mel nii soo kon nañ gën a jàppante euh, ñu xam ne itam lii dañ mooy commencement bi rek dëkk bi dañ ko bëgg a ñu liggéeyal ko ba ñëpp xam ne dëkk bi ci ceeñ nañ addina dafay dox addina buy dox nag ñëpp ànd dox ak moom bu buñ bàyyi la fi newoon suñu maam bàyyi woon rek mu nekk ba léegi loolu yëpp dañ ko dañ ko war bàyyi suñu xel waaw nu ñaante bi am xaalis itam nañ continuer xam ne euh, du yàq si du nga am dara waaw lu nga joxe si mbir dëkk bi du tere yow lu war a am di ko am nañ góorgóorlu la kenn ku nekk lu nga am nga éni si jël si si jox ko dëkk bi waxuñ nag nga jël la nga am yëpp jox ko dëkk bi nga toog du loolu de waaye nag la ngay am tuuti am na mën a coppati def ko waa dëkk bi su boobaa suñu gisee lu nga xam ne ni lu important dëkk bi nga xam ne ñëpp ko jëriñoo waaw ñu def ko si dëkk bi te loolu mooy yokk yokku réew mooy yokku dëkk mooy ës jàmm bi ko dëkk su yokku rek jàmm am na fu ne ni bu ndox amee courant am yoon am jàmm am lopitaan am yëpp am loolu mooy ës jàmm si réew te loolu yëpp fas nañ ko indi dëkk bi daal ñu taxaw si ba luñ si bëgg rek ñu def ko si jërëjëf kon ngeen bëgg yëpp ngeen def ko si yàlla ko yàlla def yàlla jàpp si si barke yonent bi te woy ji yëpp fekkee fekkee ko ak jàmm ak tal ko si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit amul lu dul réew mu waaye nit amul lu dul dëkkam kenn ku nekk wax dëgg yàlla euh, nga am taxaw yu mel ni sa dëkk yaakaar naa dina tax réew mi gën a am solo kon ñu ngi woon fii ni si Badru TV si si Mamour Fana ñu ànd si woon ak suñu wayjur gi nga xamante ni moo di sëñ Madi Cissé kon jërëjëf waa Badru TV ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax incha allah baax na jërëjëf jëf waay tivi TV ñu ngi leen gërëm di leen ñaanal yàlla euh, seen télé bi makana, makana, ko kanam a kanam a kanam kanam yàlla barke leen ñu fay liggéey yëpp kenn ku ne la fa na la defal ko muy sa muy sa bos su fekkee alxuraan barke makaama din nekk fii si biir koñ bi ñoo wax Kélimane si biir Mamou Fana di ubite juma bu ñuy wajal ñu ngi nii nak fi gars di toge añ yi gan léegi nag ñu ñu rek ñu am ñoo laaj ci biir Kélimane si soxna yi nga xam ne ni ñoo fi nekk di tooga añi ñu am ñoo xaw a laaj rek pour ñu wax ñu naka leen nekk ci waañ mi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw tey moom dañ doon laajte comme ni ngeen nekkee ci waañ bi ak ni ngeen nekkee di organiser ak ni ngeen di séentoo gan ñi tey pour ñu war a ñëw fekkee ubbite jumaa gi. te kay dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin rek waaw ñu sant yàlla lu bëree bëree bëri waaw ndaxte xew li moom xewal yàlla la ñëpp ko bokk waaw te ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw ndaxte ñëpp si nañ ñi fu waay man a nekk rek ñi ngay ñëw nit ñaa ngay ñëw bu baax a baax ñëpp egsee guñ waaye ñi ñaa ngay ñëw fu ne togg leen fukki mbanaat soos ak ñaar yëpp a ngay taaje waaw togg nañ ñeleñ togg nañ findi kii eh, eh, naka togg nañ waaw fu ne daal togg maas potato togu ne yep ebe ba ci bir biir ñing ko togu lo xam dal li da koy lek ñing ko defar defar ne suñu caari defar suñu yëpp mm-hmm. waaw sha allah yëf yi moom ma dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin rek kon dafa melni gan ñu wara ñewte seen xel mo warna dal si affaire lekk geeg yooyu noonu yëpp waaw waaw waaw ñu ngi ngi dalal dal gan ñëpp kep ko ñew dal bëgg nañ nga lek ba sour naan ba mandi te bëggu ben jafe jafé waaw kep ko ñew dal da rek nga tok mm-hmm. dañ la teraangal ba nga daw mm-hmm. waaw loolu lañ fas ne tay waaw ndaxte ubi jumaa mi ñëpp a si bég ñëpp a si kontaan te ñi ngee ñaan yàlla jumaa ji yàlla nekk suñu yokkute yàlla nekk suñu wér gu yàlla nañ ko jullee ay ati ati at mag ñi yàlla yàggal leen si kanam xale yi jigéen ñi bañ ñeme waaw te maa ngi gërëm waa baati maa ngi gërëm waa Màkka waa Mbayeen waa Paate képp tund boo nekk fi bàyyi ma kenn ku lim rek da nga jum maa ngi kët kaati mag gaay yëpp képp koo ne si tund wi maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant waaw te ndaxte ñëpp ñëw nañ ñu ngi bu baax togg yi ñun yëguñu si dara ni ñaa ngi jàppale waa baati depuis suba xale daara yaa ngi root root nañ ba kër yëpp fees nañ manqué wuñu ndox manqué wuñu dara te ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di waal alhamdulilahi rabbi alamin kàddu gi rafet na trop ñu ngi laa jaajëfal waaw man maay Ramata Cissé Seydou Sirif Cissé baati Njool di doomi alaaji baabu ak jéy jaara maam faana na trop lépp ko dégg nañ de li ñu ñaan daal ñi nga xam ne daal julli jumaa bi moo leen taxawoon a jóg ñëw pour jàppale ñu tànk yi ñëwee yal nañ ko delloo jàmm yàlla bu ci benn problème am di sant si mbokk yi rek waa Baati Ndioloo kër kaati mag yëpp yëpp yëpp waa Serakunda yi fi naa su ñeboone Gàmbi moom mënuñu tudd dëkkee waaye Gàmbi moom ñëpp jàppale nañ ñi rek yéen ndaw yi ñoo ngeen magam barke macha allah jërëjëf waaw dëkk bi Mamoud Fana ñëpp bennoo nañ waxuma la ak Mamoud Fana ñaame na yëpp ñaame ne yépp a benn ñëpp ñëw nañ teew waaw luñ bëgg na moom gan gu ñëw na nga lu bëgg regg rek naan si ndox mi rek naan si dirin si ñu ñaanalante kenn ku ne yàlla ubbi la yéen ñu nekk si wàllu caméra bi tam gis naa seen taxawaay. wala booy si ñoo nekk nii nga xam ne nii mooy si Cissé ak Mamadou Ba ak Ndiaga Cissé ñu ngi nii tey di doom si kër Mamour Fana juddoo fi yaroo fi màggee fi tey nag ñu leen di laaj. naka ngeen di see bis bii nii bis bu màgg bii nii nga xam ne nii dañu war a ubbi jumaa ji nga xam ne nii moom leen samp si biir Mamou Fana. waaye baay xanaa kontaan rek kontaan trop sa waay parce lii moom sa waay lii moom ko gis sax xel war naa dal quoi moom neex na trop macha allah waaw comme di ñaane ko commencé si bisimilah rahmaani rek ñu yëgale ko si lu fi nit ñaan yàlla na ko yàlla nangoo kontaanee trop man billahi man ne dama kontaan fu ne ba xamoon sax naka lay def sa you know yeah I'm so happy nag thank you so much Ousmane laaj la. waaw xanaa di la di nuyu rek. di rafetlu kàddu itam comme nu ki waxee rek ñun moom bés bi moom bés bu la parce que suñ Néeréen yëpp ñëw nañ baati ñëw na yeneen dëkk yëpp ñëw nañ di gërëm ñëpp rek parce que nga xewle ñu fekk si tam yombul te nañ fekk si ñu kon nag di gërëm ñëpp jigéen ñi gërëm nañ jigéen ñi gërëm góor ñi ñëpp sonn nañ nag boys yëpp ñëw nañ façon bés bi dafa neex parce que ku nekk ku nga gis di nga ko gis ñëpp teew nañ fi kon duñ def lu rafetlu rek di sant ñëpp te di ñaan yàlla rek yàlla nañ ko jeexal te ku fi ñëw rek fi bëgg na nangu sa ñaan ba mu yegg di leen ñëpp tam jërëjëf jërëjëf Ousmane di ñëw si Njaka nga xam ne nii Mamour Fana comité bi la bokka ah. waaw ñu am yu laaj rek si bis bi nga xam ne nii leen ubbi ji di kër Mamour Fana gi nga xam ne samp nañ fi jumaa ju ju am ju rafet ñu war koo inauguré tey ñu laa laaj nag yow sa xalaat tey si bis bi ak noo ko gisee tey. jërëjëf du ah, comme na ko waxee rek bi moom xanaa ñu sant yàlla rek waaw parce que jumaa ji fu mu moo sori I can remember first day bu ñu doon am first meeting bu vosoon lañ ko amee Séméga Diané Hall ñu ne lu ñoo def si jumaa ji ndax dañ koo tabaxaat dañ koo peinturaat ñu ne dañ ko daane ñu ne jumaa ji suñ ko daanee duñ ko mën a tabaxaat tabax jumaa yombut ñu wax wax wax coow lu bëri waaye ñu mujjee d'accord ne nañ ko daane tabaxaat beneen juma bu ees yàlla def buñ ko daane nit ñu wax yi bëri woon na ñu nekk naan buñ ko commencé ñu ne juma ji du dem du pare du pare du pare du pare waaw waaye lu tubaab bi de wax sulooli bot sooli yàlla def na ne tey ñun ñëpp a ngi fii nii fii koo fi gis tey mu ngi kontaan ndeg lan ndax jumaa ji nu mu rafetee képp ku dëkkul maa faana sax su ñëwee waa ah, macha allah jumaa ji moom rafet na xam na xaalis bu fi dugg moom bëri na waaye jar na ko parce que fii ku fi dugal sa 5 dalasi yàlla moo tax nga ko fi dugal soo ñuy ñaan yàlla rek képp koo xam ne ak loo fi dugal yàlla fay la te ñëpp a kontaan fii tey soo gisee góor yi yëpp jigéen yeeg ñëpp ñëpp a ngi jaxasoo su toogee kaay lu ko waral rek mooy nekk benn kontaante te xam nga ma lu ma gën a neex si projet gi jumaa ji mu nekk dafa tax Mawar Fana yëpp nekk benn amul kiwel amul jokul amul kilimaan amul beneen koñ soo loolu dafa tax Mawal Fana fu mu nekk nii Mawal Fana sa kanam la. loolu amuloon dafa mel ni su ma la déggee jumaa ji daal boole na Mawal Fana mu nekk benn. parce que soo fa demee doo xàmmee kii fii la dëkk. doo xàmmee kii la fii la dëkk lu mooy jumaa ji. dégg la loolu am na solo trop ah, dama lay wax nit moom duñ mën a déggoo si yëpp waaye sant naa yàlla bi nga xam ne Mawal Fana yëpp leen déggoo si wàllum jumaa parce que ñun ñëpp déggoo nañ si nekk si benn jumaa ji xam nga waaye lu ma lu ma gën a foog moo tax lii yëpp am parce que lii mooy mbir yàlla te yàlla moom lu baax rek lay def lu rafet rek lay def gis na lii fu mu nekk nii Mawal Fana suñu amee meeting fu mu nekk nii tey su paree suñu demee ba ubbi jumaa bi koo gisoon a gis ku nekk di nga ko gis xam na lii yëpp jàmm te lii lii lañ bëgg si Mawal Fana lii mooy développe dëkk dëgg la diine moom gars yi diine ak jamono ñooy ànd waaye comme am na su ko Ousmane waxee woon mu ne suñu paree na war na nañoo meeting waa dëkk bi duñ mën a tabax jumaa bu mel nii gars yi di ñàkk waaw nañ fexe ñëpp di dem julli waaw di di di revolu yin tam sen taxawaay yi no am solo torop you know because ñun suñ toge fi ni rek def li am nga yeen sell out to the community like to the wall everybody ñu mën ko gis am nga ñu ngi leen di sant di leen gërem di rafetlu am nga yeen tamit you know you have contributed a lot so di wax jere ngeen jëf rek yal na yàlla yokka télé bi yal na yàlla yoka like Badru TV waaw yaakaar na diga Badru TV Badru TV mom ba pare de na like anything that has to do with religion ak yoonu da ngeen ci def taxaway ben mut soo ñu ngi kontaan si loolu trop kontaan nañ macha allah comme di leen ñaanal rek xam nga yéen a bugg a xam foo leen bugg mu aaga ñu leen ñaanal yàlla na ko yàlla yombal yàlla aagalal ko foofu noonu waaw di wax jërë ngeen jëf di sant ñëpp ñu fi ñëw ku dëkk maa fan ak ku fi dëkkut ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp jumaa ji tey noo ko gisee tey waaw di sant yàlla bu baax rek di gërëm waa baat yeeg yeneen dëkk yi ñuy wër yëpp mm. day am kontaan bu baax nag mm. xam na ni gars yi jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax jàpp nañ si bu baax a baax a baax liggéey bi moom ñu ngi si kawam li ñu si war yëpp ñu ngi koy def parce que lii rek la ñuy wax dëkkandoor ak mbokk am xew ñëpp bàyyi li ñu def ubbinte ñu Mama Fana war a ubbee sa juma waa ma waa baat yeeg waa naanaa yeeg foo xalaat ñëpp ñëw taxaw si liggéey bi kontaan rek lañ si am kontaan rek lañ si am di ñaan su la déggee suñ mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon seen liggéey feeñ na waaw mag ñi fi nekkoon seen liggéey feeñ na te xale yi tamit déggal mag ñi moo tax tey nii ñu mën a def lii nii parce que boo demee ba si jumaa bi boo xoolee di nga xam ne lii moom ñu am jom rek moo ko mun waaw liggéey bi moom rafet na trop mucc naa bi rafet na bu baax a baax a baax di si kontaante bu baax nag di leen gërëm di gay gërëm gaay yëpp ñu fi yëngu yëpp amu seen fay nag waaw waa Badour TV ñu ngi leen gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal liggéey bi yokku ca kaw ca kanam ba ngeen am seen télé ci barki yenent bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def barki jumaa mi tey bi waaw kontaan naa si yéen jaa ngeen waaw bis bi nga xam ni mom moom lañ war a jumaa yi ma Faana ji leen laaj nak tay naka ngeen gisé bis bi. ah sant yalla rek ak contane tay moom mënuñoo wax dara du contane ba mu ëpp parce que xew-xew diiné la té contane nañ ci trop gis nañ ne ñëpp mbaal dëkk bi boo xalaat gambe ak Sénégal ñëpp ñëw neen kenn desul kon ñu ko sant yalla bu baax baax baax di ñaan yalla yalla yalla nangu ñu suñu jumaa ñun ñëpp si barke bi gërëm nañ ñëpp especially Badru TV di Fes Islamique online TV the Gambia kontan nañ ci torop gis nañ seen taxaway ci bi dekk bi ñu ngi ñu ngi dal kontan si même ba si badou TV yépp gis nañu nan ak lañu ñu xew xew diiné yi parce que télé yi bari nañu way télé bo xamné ci mbiri rek lay yëngu kon eh, télé boobu mom dañ ko war ñaanal tay ñu am ibim juma amunin nañ juma jamono dox ba am juma bu njëkk sa télé amutoon ñu dem ba online TV am ñu am juma ju méngoo ak jamono ñu ñaan yalla yalla yalla nangu ibim juma ji télé bi tam yalla ko yalla yóbbu ko sa kaw sa kanam gërëm waa baat yi tey moom dafa mel ni waa baat yi moom ñoo moom xew li kenn manqué wut waaw colère la te colère la ak tam dañ bokk diina te xew-xew xew diina la dafa ñor ñëpp moo tax ñëpp ñëw nañu tey lislaam moo wootee maa faana woote wuñu lislaam moo amaat doole lislaam daal moo am lum liggéeyal yàlla néeg boo xamante yàlla rek ko moom kenn moomul ko kon ñu ñaan daal képp fa jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu si barke yonent bi ñu ngi leen di gërëm ñu Badru TV yëpp tey na fi ngeen ñu gis ñu taxaw nii mooy koñ bi ñuy wax mbedd gudd kër Mamoud Fana di kër gi nga xam ne nii mooy kër gi nga xam ne mooy nyu alkaali tey ñu fi fii nag fekk gaay togu ñu seen togg defar seen añ yi nga xam ni moom leen gan yi nga xam nyu ñoo nyu fi si dëkk bi di kër Mamoud Fana gi nga xam ni dañ Juma juma Juma ju riis jumaa ju nga xam ne nii la dogal ñu war ko ñu dugg rek seet gars yi nga xam ne ni ñoo nekk si wàllu togg geeg yooyu ñu am lu leen laaj tey naka leen pare pour dalal gan yi nga xam ne ni ñoo war a ñëw si biir dëkk bi fii xam naa ne yéen a waajal seen gan xam ne ñoo war a ñëw fii tey. waaw ñu ngi leen a waajal bu baax. Mm-hmm. ngir lan gan moom soo ko amee. Mm-hmm. war naa mën a war war naa mën a lekk ba suur. Mm-hmm. naan ba màndi. foog naa loolu rek moo fi des. kon nag ñu ngi góorgóorlu bu baax. waaw jigéen ñi tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ak góor ñi tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm mooy booy am na hitte trop si bagage waaw koñ bi moom ñëpp jàmbaar leen mi jigéen mi góor mi mag mi ndaw ñëpp daal ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax ndéw ba suur añ itam ñu ngi si programme bi añ yi leen daal balaa wan a kolog añ ñëpp daneen pare si jàmm ak jàmm waaw soobee an daf leen soos daf leen six sebin bara maafe ñeleng mooy ñeleng daf leen foog naa foo ah euh, cere daf leen ñaar euh, benn cin daf neen five foog naa daal façon togg yooyu leen fi am waaw maafe la ak benn cin ak soos ak cere ak ñeleng waaw loolu leen fi dafa am. ok jërëjëf di la jaajëfoo bu baax a baax a baax. waaw yaa nekk si wàllu gi tey laaj rek tey togg gi naka la naka ngeen paree pour seen gan yi suñu maa nekk njiiti togg fii si Maama Fana. Hmm. waaw ñu ngi nuyu ñep di len welcome di contane di sant yalla bu baax ndax auto ñu la rek neex la di len nuyu yon suñu gan ñi di leen balwaax nak si coono bi di len gërëm bu baax ndax tambal nañ ko si bismillah yalla nañ ko mottali mottali nañ ko ci alhamdullilah rabbil alamin kon ñi ngi gërëm suñu kilifa yi di len ñaanal yalla may len fan bu gudd ak yaram yàlla yàggal leen suñ kanam taxawaay bi gën a dëgër xale yi tamit xale yu am pas-pas leen jiboo nañ ànd nañ déggoo nañ topp nañ kàddu mag ñi kon ñun ñu ngi sant yàlla ci loolu di leen nag gërëm bu baax di leen wax ne pas-pas biñ am ba taxawal jumaa bii nañ ko yokk buñ ko wàññi kontaan nañ si ñoom bu baax di gërëm nag suñ doom yi nga xam ne ñu ngi si biti suñ doomee suñ rakka yi suñ mag yëpp jàpp nañ si parce jumaa bii waa dëkk bi seen doole rek lañ ci def bépp alal buñ cee def dafa jege ko bitim réew wala suñ doom yi si komba ñoo ko fa def santa nañ leen gërëm nañ le mënoon nañoo wax ne ñu tooguñ maamu faana duñ def fii dara waxuñ loolu de lépp lu baax indi nañ ko waaw maamu faana ñu ngi ko fee indi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla nag lépp luñ man ren yàlla nañ man déwén lu ko ëpp jumaa bi yàlla nañu jikk yàlla nekk suñ jiglaay ñoom ñi si biti yàlla nañ ñëw ak jàmm fekk ñu si jàmm ñu ànd ak ñoom si jàmm boobu ñi fi nekk itam luñ jéem yàlla nañ ko man ñamit buñ ñëwé liñ fi bàyyi yalla na ci dara ja yonent bi kontaan nañ trop nag amul amul kontaan jeri jërëjëf jeri jërëjëf maire ñu ngi lay nuy bu baax la bu baax wa badu TV ñoo ñëw fi seet la fekk la ngay yëngal añ bi nga xamné ni mom la gan ñi nga xamné ñoo wara ñëw gi si añ bi ñu war añ ñu la laaj rek te naka nga gisé bis bi ak naka nga dundé bis bi sant yalla assalamu alaykum commencé rahim sant suñu ñaari wajur ngee sant yàlla suñ siyaare dëkk la fii la suñ yaay dëkk fii la suñ papa yi dëkk si mooy suñ cosaan waaw dañ ñëw rek pour ubbi jumaa bi léegi nag dañ koy def rek pour teral gan ñi waaw ñëpp am si xewlu yi si barke Seydi ñu ngi commencé si bisimilahi rahmaani yaa nañ ko jékkali si alhamdulilahi rabbil alamin si barke Seydina Muhammad ñu ngi leen ay gërëm di leen sant képp ku fi teew rek ñu ngi lay gërëm di la sant di la jox sa wàccuwaay Ah, dalal ak jàmm waay dal leen ak jàmm waay ñaanal ba tibi yàlla yàlla jàppale ngeen bëgg a yegg yàlla fa yàlla yeggale si barke Seydina Muhammad yàlla jàppale leen yàlla mën a aar yàlla leen aaral boppam si barke Seydina Muhammad waaw baax na jërëjëf jëf waay yaa laaj ak sa sant man Jalle Cissé le ni jigéen ñi Sarakunda mboolem ku nekk Sarakunda te dëkk Maofan gannaaw yàlla man la gars yi jël may seen président waaw ah, di dole sante yàlla rek di gërëm ñëpp nag képp ku fi teew rek gërëm nañ la yéen ñu nga bàyyi seen itte yëpp ñëw ba si suñ dëkk waaw ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sante di ñaanal suñ mag ñi tam yàlla may leen fan may leen wér feke lo lu bare bare bare di la laaj rek comme tey ñu ngeen organisé togga ak ñaata mbana ngeen togga ak ndax meso ngeen gan yi ngeen xam ni ñum ngeen expect ñu ñëw fi ndax suñu liñ doon sentu ci yeen dinañ ko gis waaw incha allah daal moom dara manqué wut. duggane yëpp ba mot. ñaata nag juróom-ñaari nag suñ koñ kese ay koñ koñ five koñ ñoo fi nekk. mais bare dara manqué wut daal képp ku fi ñëw daal bëgguñ nga dem ak biiri neen nga lekk ba suur ñele nga fi. Euh, xam nga ñeleng moom faana faane ñoo ko xam waaw cere jàng fi loo xalaat daal togga togga nañ ko te bëgg nañ bëgguñ kenn dem ñàkk lekk ñëpp lañ bëgg ñu lekk ba waaw kon nag doole sant yàlla rek di gën a ñaan ñaan yàlla may ñu fan ak wér may ñu fekkee lu baree baree bare te bi yàlla doon boo xam ne ëllëg beneen bu gën a baax bu gën a neex bi moom la ñuy ñaan waaw jërëjëf. jërëjëf waay di la jaajëfal bu baax si bis bi nga xam ne nii moo xew fii si Kër Maam Fana ñu war a ubbi jumaa ji tey di la laaj tey naka nga dundee bis bi. Ah, asalaamaaleykum waa Badoo TV. ñu ngi leen di welcome si suñu dëkk bi di wax ne daal tey daal bis boo xam ne la bis bu màgg la bis bu rëy la ndigte tey képp koo xam ne gëj nga koo gis mu bokk fii ni ci Maodo Fana ñu bokkul Maodo Fana sax ñu ngi ñëw neen tey Maodo Fana fii di ñaan rek yàlla defal defal ñu jàmm si dëkk bi jumaa ji ñu ibbi yàlla na toog bépp xaalis bu fi do ak képp nga xam ne def na fi dara yàlla na yàlla toog ba fula ni la lu nga am yàlla may ñu fan bu gudd ak wet gu yaram yàlla def dëkk bi yëpp ñu nekk benn ñëpp mànko yàlla defal ñu jàmm daal kenn mënut a wax yàlla saxal diine ak lislaam si biir réew mii nii yéen waa Badru TV tam ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw ku wax daal day jum daal waaye kontaan nañ trop daal di ñaan yàlla rek yal na yàlla nangu ñaan yëpp si barke alquranu karim barka salaatu fatiha képp ku nga xam ne tamit ñu ngi doon def def neen seen contribution ak yëpp si biir jumaa ji te yàlla def na fekkee wuñu ko yàlla xale leen arjana yàlla seddal suuf seen kaw yaatal seen bàmmeelam waaw loolu lañ amoon si luñ doon wax toogay fii daal loo xalaat rek mu ngi fi tey yaay bañ rek loo bay bay pare neen ba nga xam ne képp ku nga xam ne ak fu waay munti jógee ku ñëw rek incha allah doo dem ak mt biir sa biir di nga lekk ba suur mu rees ak jàmm nga naan ba màndi dara manqué wut fi lépp a mat foo dugala nag si dëkk bi rek lépp léeg lépp a ngi mat oh waaw fi may Mamoud Fana daal kër Mamoud Fana waaw. yomb na waaye sëriñ jaajëf waaye macha allah sagal nañu yërëm nañu suturaan nañu yàlla yàlla sagal nañu tey macha allah bii kon ba yàlla ci ba ma nijaay baabu la ci dëkk bi la booy ñaaw maaro am nga dëkk bi ñetti ñetti ñetti parti ñeent ñeent fii mooy ngewel def kenn mbéri ku mbay nga daara sar nga dem keliman kan jaga mbobe nga dem be dugu seet kan ngi me bak ak pura gay ndim bi ga bak pura gay loli bi ga bak maamu faana ga moom moom maamu faana jee faana jee faana ji laaj maamu jee ba maamu faana ga jee laaj maamu jee jël mu ni jaayam ñoo ñooy fii mbe nam kalañ mar kuma dam be te jama bonde jambe ko do ma dum be dara jëm na pulo sa puro mo be jega njer nak ma lay sako jega mo mi genni bati baax da ñew jokkum daal sa ko ma ta kalañ ko fa bombe ko kawan ma gay ku da alaye mo kumba mo hana Omar Beri alaye a hana Omar Beri ñu jaar Njaay Kunda Njaay Kunda moom ak maaw faara bis baa ngi man ñu fanaan fii laxas penc mi laxas kur gi dàq ji ne jas xam bi te guddi ga la Omar Jaba bàyyi Malick Faara toog ko géwélam bi suma maam ne ko ma de damay bay mu ne ko bul bay ma dee la ñetti at maa la jox bayam xam luy ni géwél bopp yoon moo waroon géwél am suma maam jiitu bopp yoon muy ma ngambi bee la moo jiitoon bopp yoon yi ànd ak ma di bakkaar ku la di noxo kaatim géwél mooy basi ci sant Touré ma di sant si ci nga bopp ngambi bee la mooy géwél yoro si penda mooy ku sant mbay ku la di noxo mooy ngàllagu loolu la ñeenti maam ñoo jógee Mbacke wàcc Diakha da nga gudd yoon. ma doon yóbbu ji. ala yëngu ma kumba. waaw ba mu ñëwee fii ndax ak peñ yi xam nga man mii. waaw mu ne ko man mii maa bëgg nga nekk borom dëkk bi. ñu ko doon siise man duma moom borom dëkk. ñu ko jokkoo ma ñu ko jokkoo ñu ko jokkoo gaañu ñu ko gaañu seen jël. ñu ko maa ko anam. mu ne ko ñu ko mënee dina ah, jël ñu ko ala yëngu ma léegi ñu ko jox maa ko anam ñu ko maa ko anam mu ne maa waa ñu mel ne moo ji Maka. mooy mooy kéemaar Maka yëpp. ñu ngi seet Sadio Ndiol Bakar Koura Gaye. Ndiol Biga Bakar Koura Gaye. Loli Biga Bakar Koura Gaye ma di sukkar xam na. di Bakar la. ñoom ma loolu lii. baax lool lu solo lool ndax lii tey bis boo xam ne bu rëy la ci ñun doole gii ci ñun doole gii ndax soo gisee man di la wax lii ndax fay xam ne fàttali koy doon kii tey mooy suñu taaw mooy suñu taaw jigéen ji te jege mooy Moussa Awa Dieng moom mooy suñu taaw mooy doom bu góor ñi fii Thank you. duñ dem sa suuf mukk kontaan Maamu Fall ndax suñ daje bi ba baati ba màkk ba mbëyal ba kër ba tati maaya képp koo xam ne bokk la ñëpp di jàppale tey ci kooku bi de ndax boo seetee ne li fi nga kaleere tey Maamu Fall mën nañ koo jàpp di ba tey du mbale baati ñoo seen xale yooyu ñëw daayira bi roose tey ñoo ñëw wax lii yëpp ñoom ñoo xale xale jigéen ñi bu ngeen demee dama leen di taal ñëpp ko gëral nga toog ñun kontaan bi ñu am mën ko wax mën ko faana doo tooñ dara si xew li réew mi ñoom ñoo ñu jàppale waaye bëgg naa yéen yéen itam yéen ñi dikk si rajo bi fii al moo Albatoury sant nañ leen gërëm nañ leen Albatoury TV waaw Albatoury TV ñu leen a gërëm yal na leen yàlla yokk te yokk leen barke may leen fan ak wér su ne itam li ngeen liggéey yal na fi yàlla dem barke def si seen moom te man koo jëriñoo yal na leen yàlla jàppale ñu maam a kontaan nañ kontaan nañ ndax seen jibaay ji moom daal moom yow képp koo xam ne dikk nga ba su ma wàggaay ñu ma yi maa lay toog a jaaree ku ko jël na ma meer danañ dëkk fi sa jumaa ji saar ba fa nekk tey su ma nee boo demee waaw mu yëpp jëw man daal ma am لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mbokki ñi déglu mbokki Mamoud Fana mbokki Ñaamina mbokki Gambia mbokki Sénégambia yépp ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziaré ci bis bu mag bi nga xam ne ci la ñuy ubbi jumaa ji mu am rekk kàddu yu ñu fàttaliloo mu nekk kàddu yoo xam ne dañoo wax ni ñu gàttal ko jublu ci rek li yàlla subhanahu wa taala wax ci alquran ne wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin na ngay fàttali ndax fàttali moom même ñi xamoon sax boo leen fàttalee loolu daf leen di jëriñ ñoom woy gëm yàlla yi kon loolu mooy sabab bi li nga xam ne moom lañu war a wax nag ñu du gàtt li ñuy wax dañ koy aj rek ci mbiram dëkkandoor dëkkandoor dafa bokk ci fukki xaq yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala ci suuratu nisaa yi bi mu waxee ne wa'budullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsaanan wa bi zil qurba wal yataama wal masaakiin daf ci teg wal jaari zil wal jaaril junub nee na jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara waaye na ngeen di rafetal jëme ci seeni waajur ak ñi nga xam ne seen jegeñaale lañ ak ñi nga xam ne ay jirim lañ ak ay miskin waaye mu teg ci nag na ngay rafetal tam jëme ci dëkkandoor bi la jege wala dëkkandoor bi nga xam ne daf la sori kon dëkkandoor am na boo xam ne ñetti xaq moo dox seen diggante dëkkandoor bi nga xam ne daf laa jege ci ak bokk ngeen bokk nekk jullit naka noonu tam bokk dëkk beneen dëkkandoor bi nga xam ne ñaari xàq rek moo dox seen diggante mooy dëkkandoor bi nga xam ne jegewante leen ci askan waaye yéen a bokk dëkk bokk nekk jullit waaye lislaam ci ak mbaaxam ak maandum moo tax même dëkkandoor bi nga xam ne bokku leen diina sax yàlla subhaanahu wa taala wax na ne day rafetal jëme ci dëkkandoor boobu maanaam ñàkk bokk ak nit diina loolu terewul nga rafetal jëme ci dëkkandoor boobu moo tax alquranul karim yàlla di wax ne wa qul li ibaadi yaqulu lati hiya ahsan mu ne yonent bi sallallahu alayhi waxal sama jaami ne leen lépp loo xam ne ñu ngi koy wax muy génne ci seen gémmiñ na nekk lu gën a rafet moo tax benn boroom xam-xam muy wax naan usika fi nazmil kalaami bi xamsatin in kunta lil muusi shafiqi mutia mu ni su fekkee yaa ngi bëgg a wax maa ngi lay dénk juróom yoo xam ne yow mi war a wax na nga koy bàyyi xel bu fekkee yaa ngay déglu koo xam ne mu ngi lay laay biir te mooy laa tax taxfulan sababal kalaami wa waxtahu wal kayfa wal kam wal makaana jamian mu ni bépp kàddu goo xam ne mu ngi nar a génnee ci sa gémmiñ na nga bàyyi xel sabab bi tax ngay wax kàddu ko ko ak waxtu wi ak li ngay wax nu war a yem ak noo ko war a waxee ak place bi nga ko war a waxee su doon ne doomu aadama bu nekk balaa genn kàddu génnee ci gémmiñam mu bàyyi xel juróom yooyu yëpp ak li yàlla wax ne waxal sama jaam yi ne bépp kàddu gi génne ci seen gémmiñ na gën a rafet ni konoon danañ jéem a rafetal diggante dëkkandoor gi bu baax te yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li yi maa yuhibbu li nafsi mu ni kenn ci yéen du gëm yàlla mukk lu dul nga xam ne lim bëggal boppam loolu la bëggal ñépp képp ku gëm yàlla gëm bis bu mujj bi nay rafetal jëme ci dëkkandooram képp ku gëm yàlla gëm bis bu mujj bi bu lor dëkkandooram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu mu ni yaramu doomu aadama xam na lumbu ci nekk woo xam ne bu yéwénee rek lépp yéwén waaye lumbu woo bu yàqu rek lépp ñu ni mooy lan ñu ni mooy xol kon yàlla nañu Ibrahima may subhaana wa taala xol bu set wecc moo tax yàlla mu ne yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallaa bi qalbin salim bis dana jot bo xamne bu ñop dajé kerek alal du fa jëriñ doom du fa jëriñ lu moy ku ñëw ak xol bu set wéj moo tax rafetal abul fati al busti day wax na ahsin ila an-nas tastaabid qulubuhum fa taalama staabada al insana ihsanu muni fexel ngay rafetal jëme ci nit ñi waxuñ waxul kenn de nit ñi ñep la wax fexeel ngay rafetal jëme ci nit ñi neena soko defé rek da nga mëna mom seeni xol te yàgg na bu nit di rafetale jëme ci nit ki ngay rafetal jëme ci moom dafay mujj mel ni koo xam ne moom sa moomeel la kon rafetal ni ko yàlla subhanahu wa laa diglee war nañ di ci góor góorgóorlu dana tax kër neex dana tax dëkk neex dana tax itam réew neex omar ibnul di benn boroom xam-xam la mu ni daari jaara su in jaara wa in lam tajid sabran fama ahlan naqal nee na fexeel ngay laye biir dëkkandoor bi la yàlla dénk te sax nekkul dëkkandoor bu baax nee na del layee ante biir ak moom di maslaha ak moom fexe ngeen mënee waaye bu fekkee dem nga ba nga xam ne wóor na leen sax dëkkandoor bi doo mënee ak moom nee nga jóg toxu dem mo gën ngay dal ci kaw dëkkandoor ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne ne daf ne wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu ñetti yon la giñ ne giñ naa ci yàlla ne gëmut yàlla giñ naa ci yàlla ne gëmut yàlla giñ naa ci yàlla ne gëmut yàlla ñu ni kan mu ni allazi laa yamanu jaaruhu bawaa'iqahu képp koo xam ne bi mu dëkkeek nit ñi nit ñi dañuy koy ragal toujours dañuy ragal fitna bu jógee ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne koo kon nag dëkkandoor yi nañuy fexe di ko rafetal comme ni nga xamante ne alquran ni ma ko waxee fukki xàq yoo xam ne yàlla moo ko dénkaane ci suuratu nisaa yi mu bokk ci dëkkandoor te dafa wax ne dëkkandoor bi la jege ak dëkkandoor bi la sori kon dëkkandoor yonent bi sallallahu alayhi doon na ci dénkaane bañ foog ne danañ ko doonuloo tarafetal gogu bu fekkonte ni ñëpp bok nañ ko def rek mbir mi dafay dal di neex dafay dal di baax kon nak kon kàddu yi nga xamné mom lañ ma denkon heure bi mom jeexna kon fofu rek lañ koy dal di yemale di jéggalu ñëpp nak bép njumte bo xamné nek na ci ci ñun la joggé li yonent yàlla soy bu waxon rek in uridu in uridu in uridu lil islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah lima don wax yëpp laay bi rek la ci wara jublu yàlla mo meuna def tawfiq yalla yàlla bo lañu defal tawfiq ñun ñëpp wa alaykum wa rahmatullah nga feebar nekk waaye mu kàllaf boo xam ne yaa ngi ci borom bi tabarak wa taala na nga dem nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam ni ñooy toog di ñàkk julli jumaa si lu dul benn ngànt suñ julli ji woo jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni sànni nga islaam ca sa ginnaaw te jullit bu nekk war na moytandiku sànni islaam mu mel ni dañuy sunnaal ci ab jullit su aljuma su jotee yonent bi nee na képp ku ñu dugg ci jumaa ji ñu jël bu ilimaan ñëwee ba yéeg minbar ñooñu doon jël tur yi jëlatuñu tur ilim euh, ñooñu di malaaka yi muy wax nga ni ko déglu yonent bi ne ko yow mi ni ko déglu rek dugg nga ci ay jaaxal te ku julli yëkkati nga ñëw dugg ci ay caaxaan yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni amoo kon ajjuma boobu nañ koy fonk di ñëw ci waxtoom di ko joxe ni mu waree di ànd ak teewlu di déglu xutba ilimaan bi te li ilimaan ji di wax suñ fa jógee ñu fas yéene ko jëfe ñu sopp lool bis bu mel nii muy bisu aljuma koo xam ni yaa ngi ciy jàng saar bi ñuy tuddee sóoratu Kahf yàlla dina la defal leer koo xam ni leer gi dafa lay gunge di la gunge ba àjjuma di dellu kon loolu yëpp ay ngëneel la yoo xam ni ñoo ngi koy mën a amee rek fa tabaraka allahu bi su àjjuma yàlla it wax ni ñi nga xam ni ñooy jël seen alal di ko def ci place bu nii borom bi wax ni masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل di ko dépensé ci mbaax yàlla nee na boo ko doon misaal ka masali xabbatin dafa mel ni ku ji ku ji benn pepp pepp boobu bi mu saxee jàngale la waaye yow mi nga xam benn ci ay pepp soo ko waññee mën naa dem ba ëpp sax ñaari téeméer mën naa dem ba ëpp junni pepp li nekk ci benn gubu dugub soo ko bojjoon di ko wàññ mën naa ëpp junni moo tax yàlla tëje ni wallahu yudaaifu liman yasha yàlla mooy fulandil aw yiw di ko fulandil ab jaamam di ko fulandil ab jaamam naka la kon yal na yàlla fulandil ñu yal na yàlla gërëmal ñu yal na yàlla jàppale ñu euh, fa tabaarakallah ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ni dimbali te lii ñu tàmbali alhamdulillah àgg na ci jàmm waaye ñu tàmbale ko ci waxtu jafe-jafeñ xam nga waxtu jafe-jafeñ yonent bi dafa am armée bu mu doon waaj ci jamonoom boo xam ne soldaar yi matoon na ñeent fukki junniy soldaar soldaar yooyu kenn ku nekk war a am waruwaay war a am ngànnaay war a am lu mu lekk te booba waxtu jafe lool waaye saxaaba yi làmb seen poos ku mel ni abu Aboubacar fab li mu am yépp yépp yépp ba desewul benn dërëm Omar ibnul Xataab mi defoon abu Aboubacar wujj nga xam ni mbaax ku am moom abu bakar lay fexe rek bu ko Aboubacar man keneen ku ko man yoonam nekku ci waaye abu Aboubacar bu mu ko man ci lu baax Omar daal di wax ci xolam ni Aboubacar fu ñu jëkkalantee mbaax mu raw ma waaye tey jii danaa ko raw daal di jël alalam xaaj ko ca digg ba sama alalu àdduna li ma yilif juróom ñetti junni la ñeenti junni bi ma ngi lebal naa ko yàlla akub yonentaam ñeenti junni ba fa des baal naa ko njaboot gi yooyu naa ko yàlla lebal naa ko yonent bi yonent bi ni ko waaw njaboot gi loo bàyyeel mu ni ko njaboot gi bàyyee naa leen yàlla bàyyee naa leen yonent bi fa tabaarakallaahu yonent bi jël yépp ñaanal ko kon fa tabaarakallaahu kon mën nañu wax ni tey ñoo ngi roy abu Aboubacar tey ñoo ngi roy roy Ousmane ca tabeem ga tey ñoo ngi roy saxaaba yi ca seen mbaax na yàlla nangule woon saxaaba yi yàlla na yàlla nangul ñu ko kon ñu jox rek mbokk bi war a jël kàddu wasalaamu aleykum wa rahmatullah

ndax soxla yi ñu bari bari yëpp. mënuñoon a ñàkk a ñëw fii tey. mënuñoon a ñàkk a ñëw fii tey. ndax. ndax. li fi ne. li fi nekk. mooy mën a yóbbu réew kanam. mooy mën a yóbbu réew kanam. yëngatu bi li muy bari yëpp. yëngatu bi li muy bari yëpp. diine ji moo gën lépp. diine ji moo gën lépp. te diine ji. te diine ji. buñ ko jàngul. buñ ko jàngul. jàngale wuñ ko. jàngale wuñ ko. bu yàggee dana xëjam. bu yàggee dana xëjam. te doklu bi waa Mahmoud Fana def fii tey. donc def fii tey. wane na ne bu ko ñëpp royee. am nañ yaakaar ne suñ diine bi dana dem kanam te du am benn xëjam. am diine ji dana jëm foog ñu jàng ko. ak liggéeyu cee rax yëpp. ak liggéeyu ci mën a rax yëpp. ak tukki yi cee rax yëpp. ak tukki yi cee rax jàng yi nit ñi jàng yëpp. ak jàng yi nit wax yëpp. ak bi benn la rek la islaam moom kaamil amut ñaar. li yàlla bind foofu rek moo am. li yàlla bon nag ñi nga xam ne ñu ngi jublu di ko jàngal nit ñi. kenn mënul leen fay yàlla rek moo leen mën a fay. yàlla nañ yàgg suñ kanam yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam. yàlla suñ eh, maam yi li xamoon si diina yi. suñ bi ñu suñ maam yi xamee te mu xamoon ko bàyyi ko fi. islam bi ñu xamee suñu maam ñu bàyyi ko fi. buñ fexe dara xejamal ko. buñ te nag. loo bëri bëri bëri alal. loo bëri bëri alal. loo bëri bëri xam-xam. loo bëri bëri xam-xam. boo càqee ci islam rek am na lu manqué si yow. boo càqee ci islam rek am lu manqué ci yow. bon ñu ngi gërëm waa Mamour Fana sant leen bu baax. bon ñu ngi gërëm waa Mamour Fana di leen sant bu baax. président moo ebal démb. président moo ebal démb. téléphone gouverneur Sagnang. téléphone gouverneur Sagnang. ma ànd ak samay mag. mu ànd ak ay magam. ak samay rakk. ak ay rakkam. ak sumay am di jàmm. pour ñu ñëw fii. pour ñu ko fi ndax dafa am ndaje ëllëg du fi ma mën. looloo tax mu yónni pour ñu fekkee ko. loolu tax mu yebal leen ñëw fekkee. di leen sàkku ñaan nag. di sàkku ñaanal jullit yépp ci àddina si. ñu ngeen réew mi. ñaanal réew mi. ñaanal ko. mu ngi am ndaje ëllëg ngeen ñaanal ko bu kenn gaañu bu kenn am tofaar bu benn histoire am. mu ne ma wax leen ne ngeen ñaan tam feebar bii di wóor àddina si. xam nañ ne ñaan rek a ci man dara. mu ñu leen di ñaan ngeen ñaanal réew mi ñaanal àddina bi yëpp yàlla jëlee fi bii feebar. ak mbooleem beneen feebar bu am ci àddina si yàlla nañu si ci àddina yëpp gërëm na tund wi nag lool gërëm tertu bi mu fi am bi mu fi mujjee ñëw tertu bi mu fi am kontaan na ci torop kontaan ci réew mi lool mu ngi leen di sàkku ñaan ngeen ñaanal ñaanal njobootam ñaanal réew mi ñaanal jullit yépp gobodo saañang

yàlla defal ñu si jàmm jëri ngeen jëf joxoon na ma nag loo xam ne su ma ñëwee ma jox ko comité jumaa bi kilifa dëkk bi ne leen ngeen yokk ko ci añi gan ñi añi gan ñi eh, mu ngi nii nag mu ngi nii nag eh, kan lañ koo teg ci loxoom seen président bi waaw ñeen fukki junni la ñeent fukki junne. waaw président jox pour ñu yokk si añi gan. waaw ngeen yokk ko si añi mbooloo mi. démb démb la ma ko jox nag waroon naa ñëw démb mais suma liggéey bi moo tax mais waroon na ñëw démb man doon ñëw démb. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. yow ministre Amath Nkiba ñu ngi lay nuyu. ci turu waa Mamour Fana yëpp nag Mamour Fana yi ne Kombo ak Mamour yi ne fii ci dëkk bi duhuñ ñaar benn lañ su ma la waxee ñu ngi leen a nuyu ci turu waa Mamour Fana yëpp ak fu doomi Mamour Fana nekk rek ci nga bokk waxal ñu président na ko jot nañ yóbbante bi kontaan nañ lool kontaan nañ lool ndax xam nañ ne président moom fàttewul Mamour Fana ndax fan yii passé ñu ngi amoon jafe-jafe ci ndox gannaaw yalla taxaway Hamad Ba mi ak ci ndigali président mu ngi saafaraw te yalla mën ba mën def bala yag mu saafaraw ba jeex tak lepp lo xamne suñ soxla la bu ci hagge ci nopam dana ci taxaw taxaway ba man ñi ngi koy bu baax di ko sant di gëreem wa rew mi yépp nak képp ko xamne Gambien nga te ñew teew ci fi wala nga teewal fi mbolo gis nañ la contane nañ ci yow képp ko xamne doomi Gambien nga teew nga fi wala nga teewal fi mbolo ndax gambien mom gambien la rek ñun ñëpp la ndax yegna honorable monsieur Ousseynou daba yónnee na fi délégation Khalifa Sall yónnee na fi délégation président mom hebal ndaw ministre Amad enkeba mu ñëw teewal ko fi kon nak ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu jamm defal rew mi yëpp jamm yalla yalla defal ñu jamm defal ñu rew mi yëpp jàmm ci rew mi ak yéene kenen ñepp lu baax rek lañ bëgg waaye waxal ñu président na ko kontaan nañ lool lépp lu suñ soxla rek su àggee ci noppam rek taxaw na ci ba mu rafet ñu ngi koy gërëm nag bu baax xam naa ne ubbite jumaa la waaye ñu ngi am benn soxla force ñu àggee lañ ko mooy courant bi ni ngeen ñu ci dimbale bëgg nañ ko de lool ndax ñi ngi samp beneen daara boo xam ne ku samp jumaa daara ma waroon a njëkk waaye yàlla dogal na njëkkee nañ jumaa ji ba mu pare waaye ñi ngi commencé daara joo xam ne bëgg nañ waa réew yëpp ak kilifa yëpp ñu ñaanal ñu ci yàlla àggal ko su paree itam beneen sémb boo xam ne moom am na ci dëkk bi rek bu ñu soxla ci dëkk bi rek far nañ ne liggéey ko jàppale nguur gi ci réew mi ndax kenn ku ne bu ci dugalee sa loxo nguur gi liggéeyam dana oyof waaye ñëpp bu ñu wàccee ko ne buur mooy def lépp liggéey bi du mën a dem kon ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di sant waa Mamour Fane yëpp di sant gan ñi ñëw teewee si ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ma profité ci ñaari kàddu rek pour doomi Mamour Fane yi li nga xam ne moo samp jumaa ji suñ ko baxee leneen beneen sémp bu ñu tàmbali du xàgg ñu fexe gën a taxasaayu gën a takkaat suñ digg liggéey bi gën a mën a xoyof ci suñ kaw ñu ngeen nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baax di wane suñ kontaante képp koo xam ne teew nga fi gis nañ la ñu ngee sant di gërëm di wane suñ cant it ci xale yi nga xam ne ñoo ñu jàppale bokk pas-pas nekk benn liggéey liggéey bi ba yàlla sottal ko mooy xale yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak ñu nekk Serekunda ñu nekk Europe ñu nekk Amerika ñëpp benn kàddu lañ weer wu nekk balaa moo dee lépp luñ war a def def nañ ko kon xalé yi ñu ngi leen a sant bu baax di leen gërëm di kontaan ci yéen di sant itam mboolem dëkk yi nga xam ne ñu ñu wër ndax sànni nañ ci seeni ñaan di sant it Ousmane Mbaye mi nga xam ne karo karo bi yópp ba mat ndax moom itam liggéeyam rafet na ñu ko sant bu baax ndax dimbale nañu trop di jiital ci sant ginnaaw suñ président muy Alaaji sonn na lool mosta déexlu mosta tawat feebar sax bu ko defee dana jéem ñëw pour liggéey bi sant nag ñi ko jàppale mooy maamu Anta ak Madi Fana Kura ak Bakary ak Malle siise ak Baabu Baabu Yaasin ñoom ñëpp ñu leen a sant kenn ku nekk danga taxawoon wane na yaa gën a bëgg sa morom liggéey bi gannaaw bu foofu paasee ñu ngi sant suñ bokki baat yi ndax keroog bay jàppee bisi jumaa ji ak tey xamuñ guddi amul bëccëg seen loxo ci ñu ngi téléphoné lu nekk ñu ngi koy def démb tante bi nga xam ne ñoo ko def ñoo ëll seen bagage yóob def ko kaameel bi tey ñoo ko koy jàng kon ñu leen a gërëm waa baat yi démb seen xale jigéen yi ñoo ñëw roose li wër jumaa ji yëpp ñu ngi leen sant ñoom di leen gërëm di ñaan ci yàlla képp koo xam ne ñëw nga fi yal na yàlla faj sa aajo di gërëm itam imaam ñang ñu ngi ko fee gis ak Sëriñ Mansour Touré ca Daaru Rilwaan mënuma lim yow waaye daal képp koo xam ne rek gambien nga nga teew si fi rek ñu ngi laa gërëm maa ngi fàtte la ko Hamidou Dia kappet yi nga gis ci biir jumaa ji yëpp moo ko lal joxoñu ko ngir yàlla ak yonent bi ba tey di gërëm maçon bi nga xam ne moo fondement jumaa ji ba jumaa ji taxaw ndax fondement bu baax la muy njaga siise de suñ doom ñi ko mottali itam ñu ngi am ci ñoom gërëm bu baax a baax baax Aliou ak Pape Sougou jërë ngeen jëf li ma cee doole mooy ngeen ñaanal ñun ñëpp daara ji nga xam ne moom la jublu si pour sanc ko ñu jublu ci liggéey ko te bu mu xam benn kalu-kalu bu mu xam benn ngànt di ñaan yal na yàlla jàppale ñu ku fi dikk yàlla faj sa aajo borom oto bu ngeen ñibbi ngeen def ndànk yal na yàlla xàggale yëpp ci jàmm baax na jërë ngeen jëf أبواب الجنة كيف يدار خدكله يوم القيامة ومن دهيك على قبر الميت فكأنما فكأنما فكأنما قتل ستين نبيا وقتل أمه أمه ومن أتى خطيئة به يلحق وقد دخل في النار وهم يبكي ومن أتى على وهو يبكي دخل الجنة وهو يحكوه ومن لم يكن في سيادة في نفسه النقصان هل عمله ومن كان في النقصان في في في من كان هذا النقصان في يده فالموت خير له اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك سيادة في ديني وفهما في الحلم وبركة في رزقي وصحة في البدن وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ودرجة عند الموت ونصيبا من الجنة وبهيدا من النار الله أستغفر الله من كل سنبي يسكر قلبي في دار الدنيا أستغفر الله من كل سنبي يهمل يديني في دار الدنيا أستغفر الله من كل سنبي ما يمشي في رجلين في دار الدنيا أستغفر الله من كل سنبي وفرس مشية فري في دار الدنيا أستغفر الله من كل سنبي ما بيني وبين جاري في دار الدنيا أستغفر الله من كل سنبي ما بيني وبين تهلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله الله أكبر الله نعم.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 وسماء وما بنيها والأرض وما تهيها والنفس وما سبيها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلها من سكيها وقد خاب من دسيها كسبت ثمود بتخفيها السين بعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوه فحقروها فدمدم عليهم ربهم بسنبهم فسيها فلا يخاف عقبا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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربنا الأولى ولا سوف يأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك دالا فهدى ووجدك إلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر أما سائل فلا تنهر وأما بنهمة ربك فحدث الله الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم السلام عليكم بسم الله liggéey liggéey bi muy war yàlla fay leen ko ci li nga xam ne moom lañ ko bëggee ci njëriñ li nga xam ne yàlla du jeexal dara yàlla li nga xam ne mooy sa xiir yal na yàlla fay leen ba yéen ne fay leen ay jours yu ñëw. fay mi ngi yëpp. ñu leen di gërëm di leen sant. gërëm leen sant. rawatina nag. ak imam yi bàyyi ko ci yeneen gox yëpp. su ma limee. su limee. dana guddal. dana guddal. te du matal. te du matal. waaye nag. waaye nag. du tere. du tere. ñu seppi ji. ñu seppi ji. ñaar ñett. ñaar ñett. ndeg seen yéene ngeen seen yéene comme ni ko ñeneen ñëpp amee comme ni ko ñeneen ñëpp amee ak coono bu ñu jànkuwantee ak coono bu ñu jànkuwantee ñu masawu leen ci coono ñu masawu leen ci coono ndax ku nekk xam na ne ndax ku nekk xam na ne Serekunda jegewul Serekunda jegewul imaam ñang mi ngi toog imaam ñang mi ngi toog te lee ko yëkkati lee ko yëkkati jógee ba Serekunda jógee ba Serekunda imam Mansour Touré mu ngi toog. imam Mansour Touré mu ngi toog. te suma kër sëriñ. di kër sëriñam. du ma ko doon làq-làq ci dëkk bi laa ko doon wax. du ko làq-làq la koy wax. papa mooy suma sëriñ. papa mooy sëriñam. alaaj sëriñ Modou Touré. alaaj sëriñ Modou Touré. bon ci lii amee. bon lii amee. mbooloo mu mel ni am. mbooloo mel ni am. dañ gërëm ñëpp. dañ gërëm ñëpp. waaye nag. waaye nag. am na lu ma bëgg a feeñal. am na lu ma bëgg a feeñal. li ma feeñal mooy lan. li feeñal mooy lan. kuy dund. kuy dund. lu demee nii am. lu demee nii am. mu taxaw ca. mu taxawoon ca. ba ab tële dal dal ko. ba ab tële ko. su boobaa su boobaa war nañ ko yëgal nit ñi war nañ ko yëgal nit ñi ñu yokkal ko ñaan ñu yokkal ko ñaan ku ne xam na ne ku ne xam na ne liggéey bi bi ñu ko bëgg a door liggéey bañ ko bëgg a door ci alaaji Ibou Cissé lañ demoon ci alaaji Ibou Cissé lañ demoon da suma mag di magam waxoon ko mbir mi waxoon ko mbir mi mu na leen mu ne ñi man de man de attan naa ko attan naa ko waa am naa ko ma ko enul waa am naa ko ma ko yenul en naa ko alaaji Ali Mbaye em naa ko alaaji Ali Mbaye suma rakk la suma rakk la yaayam ak suma yaay bokk ndey ak baay yaayam ak suma yaay ñoo bokk ndey ak baay délégation ñëw ci man yooyu ne délégation ñëw ci moom bi ñëwee ba ñu ñëwee man may dem de mu ne moom itee attan naa ko attan naa ko waaye kenn du am ku du lakk waaye kenn du am ku du lakk alaaji Abdou Seck alaaji Abdou Seck Matar Fana moo jur yaayam. Matar Fana moo jur yaayam. Matar Fana. Matar Fana. ak Jéy Fana moo jur man. ak Jéy Fana mi ko jur. ñoo bokk ndey ak bay. ñoo bokk ndey ak bay. comme ni ma bokkee El Hadj Ibou. comme nous mu bokkee ibou non la laa bokkee Abdou sek non la bokkee alaaj Abdou sek doyna ma doyna ko holuna ko holuna ko yakarna ko yakarna ko suma ma leen ko joxee su len ko joxee yakarna naa ne yaakaar nañu yéen ñëpp da ngeen kontaan yéen ñëpp da ngeen kontaan ñëpp kontaan nañu. liggéey bi ku ko gis. liggéey bi ku ko gis. te borom dëkku ci dëkk bi. te borom dëkku ci dëkk bi. Pastef bokk na ci. Pastef bokk na ci. waaye balaa maa sori. waaye balaa may sori. Mor Diarry. Mor Diarry. ca Italie ca Italie. su ma limee du ma su ma limee du ma dajal. wax naa dina xam benn benn moo seppi. waaye dina xam benn benn yu mu seppi. Mor Diarry bi mu bëggee mbir mii. Mor Diarry bi mu bëggee mbir mii. dëkk bi takkoo nekk benn. dëkk bi takkoo nekk benn. ñu bokk liggéey. ñu bokk liggéey bi. mu ñëw wax ma ko. mu ñëw wax ko ko moom. ma ko Mor Diarry sa ne ko Mor Diarry sa rafet na. rafetlu naa ko. rafetlu naa ko. waaye am la waaye am na lu ma la cee xelal li ma la cee xelal mooy lan li ma la cee xelal mooy lan nañ njëkkee ñaan nañ njëkkee ñaan nañ njëkkee ñaan nañ njëkkee ñaan ñaan lu manut amut ñaan lu manut amut loolu maa ngi ko cee gërëm loolu mu ngi ko cee gërëm taxawaayam booba taxawaayam booba bis bu nekk bis bu nekk mu gën de fis mu gën de fis aji sekk aji sekk américa américa baabu booy baabu booy ñu nekk ci biti lay wax ñu nekk ci biti lay wax ñooñu ñooñu ak ñi ñu ànd ak ak ñi ànd ak ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp barke yonent ci barke yonent Mor Diarra laa njëkkee Mor Diarra njëkkee moom laa njëkkee moom moom la njëkkee kon ci kaw loolu amee. ci kaw loolu amee. fii nag soo gisee mu mel ni mel nii. fii boo gisee mu mel ni mel nii. li ma gëm. li mu gëm. li ma yaakaar. li mu yaakaar. li ma foog. li mu foog. te yaakaar naa ne. te yaakaar na ne. moo am moo am. alxuraan da ko tax a mel nii. alxuraan da ko tax a mel nii. oustaz Ousmane Gueye mii. oustaz Ousmane Gueye mii. lu mu néew néew. lu mu néew néew. firi na fi lu mat fanweeri at. firi na fi lu mat fanweeri at. ci jumaa ji ci jumaa ji. mag ñi bi ñu liggéey seen liggéey. mag ñi ba ñu liggéey seen liggéey. xale yi toog. xale yi toog. ñuy xalaat nuñ koy def. ñuy xalaat nuñ koy def. nañ ko maintenance. nañ ko maintenance. nañ ko daane. nañ ko daane. wax Alaaji Jibel ku ñuy wax Alaaji Jibel doomi Alaaji Samba Jëbu doomi Alaaji Samba Jëbu mi di mi noon def mi di def mu ne daañu daane ko mais nañ ko daane su ma beneen sët. su ma beneen sëtam. Musa Kumba. Musa Kumba. taxaw laajte ne. taxaw laajte ne. ndax daan wala daane. ndax dañ koy daan daane wuñu ko. ñu d'accord ci daane. ñu d'accord ci daane. te ñaax doomi aadama lii lii. dërëmam nguur. dërëmam nguur. su nekkee dugg na ci. su nekkee dugg na ci. ci war a dugg nii. tey la ci war a ñu joxe nii. ñeent fukki junne bu ñu joxe. waaye su ko moyee. waaye su ko moyee. lu ngeen li ngeen fa gis. doomi dëkk doomi dëkk bi la. kon ne. doom yëpp. doom yëpp. réew yëpp. yëpp. nañ fexe ñu def def nii. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah boole weer mu gis fii su ma toolam moo ko liggéey boole weñ moo fi gis papa moo ko liggéey ak ak i magam kon nag ñii waa Mame Falla leen ma ngi leen di ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér ñeneen présenté ci kanam mbooloo yëpp jërëjëf ñëpp Thank you. waaw jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi leen di fay di leen dalal di leen ñaanal yàlla itam seen télé bii mu continuer ba daj Afrique daj di ko seetaan ndax kontaan nañ ci bis bi ngeen ñëw nii ndax bis bi gën bis gënu ko rëy ci ñun su ngeen ñëwee fekk la ñu ko nag xam xam nañu ku bëgg lislaam ngeen jërë moom jërë ku bëgg lislaam yàgg naa ko si programme yu bëri su fekkee dinaa ko fekk ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoo mayee jàmm ak wërsëg ak ubbiteef ak fanu bu dëgg yëpp ñu ko ñaanal jërë ak ñu bàyyi liggéey ak wàllu bi yëpp kontaan nañ ci seen taxawaay ñu ngeen demee ngeen xamal daayira bi na ko ak Cheikh ak waa Mahabal yëpp de ñu ngi leen di liggéey bu baax am nañ kontaan ci yéen ñu ngi leen di ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaar bëgg jàpp ngeen jàppale ndax ñu ngi ubbi jumaa ji yoo xam ne moo doon ay sept sept millions de dollars yaakaar naa ne dem na ci waaye nag ñu ngi kon nag ubbiwaat ba tàmbaliwaat beneen liggéey beneen projet projet bu dem yal na ko yàlla àggal muy daara joo xam ne ci dem dañ bëgg xale yi dafa mokkale am faral kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wa rahmatullahi parce que ngeen toll si jamono joo xam ne nit ñaa ko si jumaa yi toll nii lan ngeen def ci ndaw ñi ak nga xam ne waaw lislaam moom ku moo yónni Muhammad ci jaam yi ñoo ko diina lislaam moo wax benn ñaar ñett ba ñeent ñu ay millions ay milliards doomu aadama mu ne dañ koo xeex itam jarul gëm du sonn du sonn la xale dëkk bi nag li ma la sant nii biir bi ñu koy samp pour bëgg waa dëkk bi na ci julli waaye suñu julli dem nañ jël seen doom yi dugal ko ci daara yi ñuy jàng ndax lii nag islam xam-xam nga te xam-xama ko jiite moo ko jiitu balaa ngay am islam dañ daa jàng ba am xam-xam waaye nag ñu ngi ñaax ndawi réew mi ak waa dëkk bi yëpp ñu gën a continuer ci jàng ndax loolu gis mu sotti rek jàng ko sottal waaw ñaareel béy tam ba tey am na lu ma ndawi Maam Fall organisation bi maa ngi leen di gërëm bu baax en tant que président sociale bi ndax seen taxawaay rafet na jale yi fi ñëw gis naa leen